dallee nag jàmm mbokk internet yi ab waay joo xamante ne yoon daf ko mujj jéggal ginnaaw si nga xamante ne jotoon nañ ko teg loxo bi mu fi faatee ab bakkan moom waa jooju di wuyoo ci turu assassin dafa mel ni mujj naa def liñ koy woowee ndax rayatina beneen nit ab ciseau moom la ko jamate ba mu ñàkk bakkanam waa ji ñu ngi koy woowee ci turam di gën a siiw di assassin maanaam lu ñuy wax raykatu nit mu nekk ab defkatu ñaawteef boo xamante ne yoon teg na ko loxo at yi ñu weesu ca commissariat bu Parcelles Assainies ginnaaw ba mu faate woon ab bakkanu doomu aadama tey jii itam yoon tegaat na ko loxo ci mbir mu ni mel ci weeru koor bi la génnoon kaso waaye reyaat na beneen xale lu góor bi la yoon jéeya jaa ngi amee ca HLM bu ñu sukkandikoo ci IGFM ngànnaay la mu jëfandikoo ab ciseau la yoon mu ngi ko tegaat loxo ca garu ceer boo maraîcher ginnaaw si nga xamante ne daf doon waaje génn ndakaaru njaay daw dem yoonam bile turu assassin moom la ko ñu bari xamee moom waaji nag yoon mu ngi foofale ca Parcelles Assainies gannaaw si nga xamante ne jotoon na fa faat ab bakkan ñu jugé woon ko condamné ko tëj ko ci kasob camp pénal bu Liberté 6 waaye ci waxtu feetu korite gi ñu weesu bokk na ci junni ak ñaar fukk ak benn doomu aadama ya nekkoon ca kaso te président Macky Sall jotoon leen a jéggal bu ñu sukkandikoo ba tey ci xibaar yi tukkee ci IGFM ca ba ñu koy jéggal dañu yaakaaroon ne soppi na doxalin rëccu ay jëfam defar ay jikkoom waaye mel ni a gaawu gi ci waxtub une heure du matin bu ñu sikkandikoo ci xibaaru IGFM yi ca la waa ji di wuyoo ci turu assassin jàpp ab waay bu dëkk ca HLM di wuyoo ci turu Matar Ndiaye dal di koy jamate ay ciseaux ba mu mujjee ca ñàkk bakkanam ba mu ca noppee ca la daw dem yoonam ca saasa way takk der yi dal di tàmbale ab lanket ñu koy seet ak wërantu fépp ci réew mi woy takk der yi bokk ci kuréelu brigade de la recherche de la sûreté urbaine ñoom ñoo ko teg loxo ca gare routière bu Beaumarchais teg nañu ko loxo ci daanaka fekkoon nañu ko mu jël place ba toog ca biir woto wa ci toogaay bu dal xel boobule woto bu mu jëloon ma nga jëmoon ca Kaolack la mu façon a def yéene nag mooy daw làqatu ca Gambia dëkkub aadama Barrow ja yow waay Samba bi yoon moom xaw ma kan waaye yow de génn dootu la yomb jërë ngeen jëf